mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM tey ci émission gox bi am ci mbégte di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Malick Kébé nekk responsable politique coordonnateur euh, bu euh, taxaw Sénégal ci diwaanu Parcelles Assainies nekk itam deuxième adjoint au maire ginnaaw bañ leen installé yàggul mu nangul ñu émission bi Malick Kébé am nañ mbégte bu baax a baax dalal fii ci rajo Rewmi FM. waaw euh, Mbemba merci beaucoup tamit ñu ngi am contentement. Eh, ñëw fii ci réew mi FM. Mhm. bokk waxtaan bi ak yéen. te eh, lu soxal Sénégal soxal nañu ñëpp te vous la presse vous jouez un d'une importance capitale. Mhm. Mhm. di la sant di la gërëm bu baax ci nu ñu nangulee invitation bi laata loolu dañuy door xam nga ba tey mbégte la Sénégal di nekkee ba tey ginnaaw rek eh, ba mu xaaree lu diir bu yàgg indiwul trophée bi mu indi fii trophée bi nekk mbégte dimanche. bi weesu ci heure bi xam naa ni ñu ci bari fii di toogul woon de. <laughs> waaw c'est important bien sûr que euh, lii moom doo loo xam ne c'est exceptionnel. parce que quand même euh, mën nañu wax wax ni euh, coupe bi dañu ko yàgg xaar. wax mhm. je me souviens bi nekkee xale ba léegi. bon ñun nous sommes des fans de de la coupe du monde 2002 après coupe d'Afrique on a tellement suivi toppa ci di daw bon on a espoir avec la génération de Khalilou Fadiga yi autres là. bon <laughs> vraiment. xaar bi yàggoon xaar bi yàggoon na quoi mais vraiment vraiment c' était un grand contentement en tout cas euh, big euh, grand bravo à, à, à Augustin que je connais personnellement hein, hein et à et aux autres là vraiment c' ça a été formidable en beaucoup d' amis au la fédération. Et tantôt j' étais parmi les gens qui étaient un peu découragés. <laughs> ah bon mais la ma leen mais écoutez mais gars yi mais na yëngatu bokk ñu ne ma non Malick sa veut dire mais vraiment euh, un grand chapeau à tout le monde à tout le monde à tout le Sénégal et fondamentalement bien sûr au, à l'État a mis les moyens aussi c'est important parce que le sport aussi c'est c'est tout ça quoi c'est de mettre les gens à l'aise pour que les gens puissent travailler en tout cas tout le Sénégal c'est un grand contentement xaaroon nga ko coupe bi ñëw Sénégal xaaroon nga ko <coughs> waaw maa ko bien sûr parce que au oh, Sénégal bon nous nous avons de très Euh, de l'Afrique, mais au niveau mondial, le Sénégal est reconnu comme un grand pays de footballeurs. Hein? Il très grands footballeurs qui, sont partout presque dans tous les dans, dans tous les grands championnats. Si vous allez en France, vous allez effectivement en Italie, vous allez en, même en, en, Angleterre maintenant. Hein? C'est formidable. Ah oui, ah, c'est une fierté. Nous Sénégal, en tout cas, quel soit le, Sénégal là où il est, il de. de je, ne parle pas de la Coupe que nous venons d'avoir. Mais là où le Sénégalais est, est de voir le Sénégalais qui joue à Liverpool et tout ça, c'est formidable. Donc ça veut dire que ça, c'est, le Sénégal a une ouverture et a, a une envergure à travers le football. Mhm. Donc fondamentalement daal on remercie tout le monde. en tout cas tey jël nañ ko ñëw na. <coughs> fan la mën a yóbbu tey suñu réew. waaw fu sori fu sori la mën a yóbbu suñu réew parce que am nga tu sais euh, le football maintenant c'est une grande ouverture au niveau international parce que maintenant. c'est le jeu qui est un jeu exceptionnel. Il a pas que seulement le football, il y a les autres disciplines. Mais le football aujourd'hui peut regrouper tout un pays. et waaw mun na regrouper ay ay dëkki dëkkaan parce que boo demee ba nga xam ni réew mi gën a mag ci réew yi mooy mooy États-Unis <laughs> léegi di jéem a góorgóorlu ci football waaw nga xam ne am na <laughs> solo nga xam ne football am na solo waaye am na lu bëri lu mu ji am na ay bunt yu bëri yoo xam ne effectivement donc day et day renforcer sa valeur mhm. renforcer sa valeur day xam ni dañuy xam ni euh, xeet bi xeet bu am valeur la ñu mhm. xeet boo xam ne ay bañkat la ñu parce que loolu dafa baax ci nit dafa baax ci day day day day yokk day yokk euh, euh, ñu koy waxati xaw ma grade la ak mu tuddee mais mhm. en tout cas dafa di loo xam ni day gën a jox gëdd effectivement réew waaw parce que ñun fekkee nañu lu bëri bi bon disons Espagne 1982 yooyu yëpp affaire yoo am coupe du monde mais on a vu ñun ñëpp bi ñu nekkee xale dañu doon wut ay xor sax di ko fubalee quoi waaw ay ay xor donc <laughs> loolu ay jamono la <laughs> waaw loolu ay <laughs> waaw léegi léegi en fait ñu conseil des ministre bi ñu génn njiitu réew mi wax ne euh, na ministère desport xool naka lay organiser ngir mu présenter trophée bi ci quatorze régions yu Sénégal ndax ñu bari dañ jàpp ni du Dakar rek waaw loolu je on partage ah on partage parce que bien sûr euh, Sénégal yëppay suivre les quatorze régions ñëppay suivre ñëpp a doon supporter wax dëgg bu coupe bi ñëwee nag vraiment on doit on doit prendre la coupe et le rapporter effectivement au Sénégalais le plus loin possible le Sénégalais qui a. sax na ñoo xam ne ñu sax laal gis rek. waaw waaw am na non non gis rek gis non rek parce que ku ci nekk fa nga nekk gisuma la mais jour boobu. vraiment di nga gis nit sax tëb na toj teleem. te xamu ko te xamul sax toj na teleem. parce que c'est vrai bon quelqu'un comme moi je je pouvais pas regarder ça je pouvais pas regarder le match avec des gens dama tëju sama néeg ak sama télé <laughs> parce que. stress bi mhm. c'était autre chose. Mhm. stress bi ni naan ndox à tout instant parce que bon euh, nous tous on a été d'anciens joueurs on sait la pression bi nekk ci football dafa métti. waaye mhm. donc mais euh, je partage hein, vraiment ñu ñu yóbbu ko. dans chaque contre effectivement du Sénégal je dis même pas les régions mais les contrées les pour pour mhm. leur montrer que vous êtes sénégalais. Ah. dans le Sénégal ñëpp ci lañ bokk. ñëpp ci lañ bokk c'est important parce que réew mooy loolu quoi mu réew du ñu nekk Dakar rek nekk ci bureau yi non déedéet. Mm. réew mooy ku nekk ca ginnaaw fungali mi fële. Mm. nekk fa ci gerte gi di bay wala que nga yóbbul ko coupe bi. loolu déjà rek day yëg boppam lu rëy ci biir Sénégal danaan man nekk de Sénégal laa bokk. Mm. c'est important hein kon lii mën na nekk déclic suñu football dox ba faaw. waaw bien sur euh, je je félicite je l'ai dit tout à l'heure à la fédération parce que Sénégal euh, li tax déclic bi gën a am sax mooy depuis effectivement l'avènement donc euh, de Augustin où effectivement on a vu beaucoup d'écoles de football qui sont créées maintenant parce que sooy xool boo xool léegi football bi nu mu développé nii euh, on voit que les écoles de football ont beaucoup joué Parce que tous les gosses qui sont, qui sont aujourd'hui dans l'équipe nationale, ils sont tous passés par les écoles de football depuis ah, pas trop longtemps. dans les ay Djambar ak yeneen centre de ah formation Ah, ah ils ont beaucoup fait parce que aussi c'est vrai euh, football football nii rek. mais léegi le football organisé aussi. Mhm. parce que dans le monde entier maintenant. tout s'organise. du affaire bi du du du nu la neexee koy defee rek déedéet. <laughs> doo ñëw rek di tële tële dem non non tout s'organise. c'est pourquoi si tu vois format d'Aliou Cissé. Mhm. on a on voyait. on Sénégal moo bëgg tamit. waaw ah. c'est du tac tac tac bon euh, on voyait ay 4-2 4 des trucs comme ça mais. Mhm. Aliou Cissé avec son système c'est cest dire que tout <laughs> du ñu am du ñu jël si émission <laughs> Jacques Matar Gomis xam naa ni ci kanam ak ñoom Babacar Ndiaye daañu ñëw ak Alioune yi waxtaanee ci li nga xam ne moom moo jëm ca kaan bi ak lu fi tukkee. Uh-huh. kon mbokk auditeurs yi bu nu paree rek réew mi sport dina bu yaatu dinañ leen ko amal xam naa ne damay bañ ñu uh, wañ sama noppi quoi du du <laughs> sport bi rek. mais nag xam nga Sénégal tam mënuñu si woon bañ ko comment tàmbalee. c'est donc bu am solo en euh, fait euh, Malick Kébé euh, tey coalition Yewwi Askan Wi gagné Parcelles Assainies mm-hmm. tey ngeen jël. jëlaat toogu bi foofu ak le maire Jamil Sané euh, installé lañ leen nga ñëw nangul ñu émission bi mhm. d'abord élection bi nekkul woon lu yomb quand waaw euh, je vous remercie bi nekkul lu yomb waaw waaw mu nekkoon na élection boo xam ni élection bu métti la parce que il fallait relever un défi hein parce que euh, mun nañu wax ni maire bi fa nekkoon nga xam ni bon ku ko xam doon fëgg dëndam di di wane ni que moom fi kenn mënu ko fi gagné parce que moom moo dëkk parcelle te moom il tient les parcelles alors que mi ngi mi ngi dafa juumoon alors euh, mun naa mun naa wax ni la coalition Yewwi Askan bi avec le maire Djamil Sané que je salue au passage parce que vraiment c'est quelqu'un boo xam ni qui est très tenace et, et un, grand travailleur vraiment je salue au passage parce que lui euh, durant la campagne la pré-campagne même et campagne nous maison par maison. voilà parce que bu def nañu kër par kër. mun nañu wax ni euh, parcelle on a vingt unité te unité bu nekk def na cinq cent maisons suñu la nee on a programme di dugg suñu duggee ci unité bi on dinañ def lépp ba nga xam ni identité remarquable lépp nañ leen gis te fu ñu romb la le le maire Jamil sànni da taxaw nuyoo saafonteeg jaaykatu gerte yi ñu nekk ci mbedd mi ñëpp mais fu ñu jaar rek nit ñi dañu préparon pour le changement nit ñi daal vraiment dañu doyloon xam nañu daal vraiment fii li fi xewoon mooy la routine ak euh, ak wane sa bopp ak wanewu li wane ni man kenn mënu maa kenn mënu mënu ma ak euh, lu ma neex def ak ah ak euh, yenn ñenn ñi nga xam ni xaalis lañ yore teg ni parcelle nit ñi dañ leen di jënd ah nit ñi doon marchandise wala ñu mel noonu loolu du métti na trop waa parcelle parce que dafa doon yoo xam ni foo dem ci ci ci Dakar ñu wax la ko nekk ah yéen waa parcelle moom yéen moom xam nañ ña fa nekk ah ña fa nekk ay borom xaalis ñoo fa nekk on Euh, xaalis moo def différence bi wala askanu parcelle ñoom ñoo def différence bi sanctionné. no askanu parcelle ñoo def différence bi sanctionné soo gisee ma la xaalis bi mooy que ne euh, beneen côté bi nga xam ne ah. ñoom ñu ne on sait fa nekk ñoom euh, ñu ne a là-bas cinq ministres. Hein? on a cinq ministres le le bos boss du ministère des finance fa la nekk on a on a on a les là-bas je pense que deux députés benn député ak benn. ak benn effectivement au haut conseil des collectivités territoriales. plus mm -hmm. maintenant xaw ma directrice de l'ANPEJ comme ça. Mm donc c' est des personnes qui sont là man mii rek sama koñ bi may génn euh, di proximité dajeeg ñoom mais dama ne woon waa mais ñi ñoom xanaa dañu bëgg ils on ils ont amené tout un indi cinquante véhicules plus des véhicules bu ci nekk ça coûte presque quatre millions. donc ah mais la population a fait la différence. ils ont dit ñoom li leen soxal mooy mooy mooy changement changement donc moo soxal moo tax vraiment ils ont choisi. le le te discours que bi leen yeewi askan bi jox waaw muy discours boo xam ne nañu bokk ànd liggéey ñu bokk euh, changer sunu Parcelles Assainies fan ngeen demoon euh, benn moment bi nga xam ni que ni jàpp ngeen ni tey élection yi c'est déjà plié. non xam nga ñun bu ñu demee ba ci digg bi on a fait euh, benn évaluation à mi-parcours mais bi ñu rencontré jeunes yi rencontré les chef de marché ñu yore marché yi. Mm-hmm. ak rencontré les religieux. ci la ñu xamee ni euh, fii moom jeex na jaratul sax ñu ciy sonn waaw ñu ci bëri si ñun dañoo wax naa jaratul ñu sonn mais le maire mun nañu déret ba ñu bàkkoo bàkkoogum nañu nañu continuer liggéey bi mais mu xamoon nañu lu ñul bu ñu eggee effectivement donc à mois de dix jours des élections que combat bi jeex na parce que xale yi ñu doon ànd ak ñun guddeeg bëccëg et bi ñu dajeeg ñoom ñoom ñee euh, waa Benno Bokk Yaakaar ñu dajeeg seen convoy yi ñi yéegoon seen oto yi xale yi yéegoon seen yi ñun ñu yéen ñun yéen la ñu gëm ñun yéen la ñu gëm fii dañ fi daw suñuy wecc c'est en ce moment qu'on a compris que en fait waa Parcelles Assainies yeewu nañu xam nañu ko ñii dañ leen bëgg a jënd lu ñu leen jox ñu jël ko mel ni ku ku demul liggéey ñu fay la sa ñax nga yor sa ñax voilà mais nag li nga xam ne nag moom mooy effectivement suñu suñu avenir dëkk ah ñun ñoo koy yoral suñu bopp te xale yëpp ah, soo xoolee parcelle mun naa wax ni yaa yaa presque juróom-ñaari groupe WhatsApp yu fa créé yoo xam ni dañuy wax ni carrément non à non à non au au au au benn bokk yaakaar. Eh. mais non au benn bokk yaakaar boobu ba ñenn ñi sax ñu ne euh, parcelle dañoo juum ci tànneef yi parce que dañoo fal koo xam ne xamuñu ko muy Jamil Sané lan ngay tontu ci loolu. waaw mais xam nga nit ñi moom bon mais moi je dois dire Moussa Sy bi muy ñëw kan ma ko xamoon Moussa Sy bi muy ñëw mais ñun ñëpp ñu ngi foon kenn xamu ko woon ah Moussa on a fait ensemble le mouvement nawetaan et tout et tout fii ku ñu fal ñu xam la. ku ñu fa ku ñu xamul fii ku ñu falu ku lay xam kenn du la xam Jamil Sané c'est un habitant des Parcelles Assainies comme nous tous alors maintenant euh, lui il est le coordinateur de de PASTEF et, et il a fait des résultats coordonnateur de PASTEF au niveau de la présidentielle il a mobilisé ses troupes dans chaque unité il a des représentants et dans chaque unité c'est vingt unités mu am fa ay représentants hommes représentants femmes comme ñu ñëpp ñun ñëpp comme ñu man mii taxaw même chose donc c'est quelqu'un qui a coordonné un travail dans les élections présidentielles. Et sans compter que ni euh, parcelle, c'est un creuset. Un creuset, ça veut dire quoi Il presque toutes les, toute la population du sud, presque est là-bas. Hein? Toutes les îles, ces sont là Alors bon, on sait aussi que... Bon, attention, hein? attention. C'est pourquoi aussi le vote ethnique a beaucoup joué. Le vote ethnique a beaucoup joué, sans compter que euh, lui aussi, il a fait un travail. Donc, nous, nous, nous, nous, nous, bon c'est un locataire wala man j'ai tout entendu mais bon fii kan moo fi kan moo fi euh, habitant né dans ce terroir là <laughs> y en a pas ce terroir là date pas de longtemps c'est un terroir qui date de 1980 81 82 Mamadou Diop moo ko créé avec Abdou Diouf. nekkul kaddu yu wér daal. non du kaddu yu wér. foofu du du comme comme ay village yooyu parcelle du village parcelle dafa nekkoon benn benn benn benn terroir bu mag boo xam ni euh, waa Kër Seydina. Issa Ruuxulaay ñoom ñoo ko mayoon effectivement Abdou Diouf eh ne ko nañ la ko jox pour nga mën a am foo def euh, ñi nga xam ñu ngi daw di ñëw dëkk si parce que Parcelles euh, Dakar moo doon capital bi alors ñi ñëw dox daje fa <laughs> ñu fa nekk dañoo dañoo dox daje fa de <laughs> ñii ñu ngi jugee ay Médina ñu jugee ay fële ñu jugee fële dox daje fa donc c'est argument boobu taxawul euh, c'est un travailleur c'est liggéeykat la boo xam ni un comme nous Hein? je ne dois pas dire que c'est un c'est un je dois dire que un politique. Mhm. c'est-à-dire politique moom du métier wër yor sa làmmiñ teg foo wax yow ñu gëm yow da nga nga ni. Mhm. soo waxee ñu nangul la. mais un homme politique c'est quelqu'un qui a son travail et en même temps il essaie de convaincre la population pour aller dans une dynamique. ne yoon bi moo baax. moo am solo politique donc euh, Jamil. Mhm. wax dëgg yàlla je peux témoigner que c'est quelqu'un boo xam n il a gagné les élections présidentielles effectivement donc euh, il a pris deuxième. effectivement donc au niveau des élections présidentielles Parcelles Assainies voilà. émission gox bi di dalal Malick Kébé nekk deuxième adjoint au maire bu commune bu Parcelles Assainies ngeen installé euh, yàggul kon dafa mel ni euh, door ngeen liggéey bi. waaw xam nga bon euh, autorité ñëw nañu def seen liggéey mooy installé mooy installé ñun ñuy jàng collectivité locale on sait que l' installation n' est pas le même travail l' installation on effectivement donc pour ngeen démarrer. alors euh, il reste maintenant la passation de service. waay mu am solo ngeen def passation de service bi <laughs> loolu mu am solo. parce que foofu ngay commencé téye lenge te foofu il faut que maire bi nga xam ne moom moo génn. ñëw wax ñu lépp ah euh, fu mu jaar li li li euh, projet bi programme yi fii la toll. projet yi fii la toll moom li mu jot liggéey fii la ci yem bor yi tamit temps de bor la am. ah te bañ a nëbb ay borol ak yëpp il faut. waaw <laughs> da ngeen lëñ bët loolu yëpp dangeen ngeen da ngeen. yooyu yëpp moom non après ah, moom passage de service moom eh, il faut que tout soit clair. mais eh, euh, on a gestion sobre et vertueuse donc euh, bu ñu def passation il faut que lépp leer eh, bu ko defee euh, ñu tamit ñu xool bu lépp leeree suñu bët daal. amul benn problème bu soobee yàlla moom xëy na dinañu déggoo ci kàddu mais bu nekk leeru tamit ah attends. bu leerul dàqu leen ci ab audit sax. ah non non bu leerul moom moom moom nous sommes désolés. bon ah, ah, audit sax ngeen fi wax parcelle. non xam nga audit sax moom euh, dafa baax sax pour un maire sortant parce que tu sais xam nga euh, nit du ñëw rek en premier ordre rek nga ñëw di signer comme ça non pas du tout on est obligé d' abord d'aller faire audit audit moom c' est important. c' est c' prévisible que ngeen def ko ci mairie Parcelles Assainies. non je peux pas y aller dans ça parce que je suis pas dans le cœur effectivement donc de de l' organisation. euh, on, a, on, en a, on en a parlé avec le maire, non pas du tout. mais ma de ma de ma conviction moi personnellement. waaw mooy Malick Kébé bon parce que. waaw yow Malick <laughs> Kébé waaw y' a le bloc Askan Wi. y' a mon opinion personnelle. waaw mon opinion personnelle mooy su ma xalaat mooy. Euh, mbir daal boo ci door a dugg euh, def audit mën a euh, sérieux tout lépp loo xam ne moo nekk ci exécutif municipal bi parce que le conseil municipal mun naa wax ni rek organisation. organisation d'orientation là il eh, y a pas il y a pas d'exécution là-bas sur place il y a rien à exécuter mais ce qu'il y a exécuté c'est dans l'exécutif municipal où c'est le maire qui qui qui qui signe effectivement les arrêtés qui fait des projets qui qui qui est dans qui est au de l'action au niveau donc donc du du du de la côté locale. Mhm. donc euh, man lu may wax rek mooy li gën d'abord mooy de fair un audit et bien sûr euh, proposer à ce que qu'on avec réserve les collectivités local moom benn maire amul droit ñu taxaw ne la bon je suis un millionnaire wala je un milliardaire wala des trucs comme ça te parcelle moom on a tout entendu on a tout vu mais pour que mu mën a leer ci nopp waa parcelle yëpp def benn audit daal ce serait vraiment formidable pour que ku nekk xam voilà euh, lu lu lu lu gémmiñ di walis ñu xam ne daal vraiment <laughs> affaire baa ngi nii euh, expert ñoo na fi def na liggéeyam lii moo fi ne lii mooy bor yi lii mooy lii moo posé problème les nu ñuy xool nu ñu ko réglé. waaw surtout <laughs> ma ne c'est entre nous parce que aussi tamit du comme ni ko le maire waxee nekk ñu fi pour pour pour la chasse aux sorcières di di jëm seet ku ñuy tëj ci kaso beeg wala ku ñu noonu pas du tout euh, c'est bëgg mu leer rek ak ñun tamit bu ñuy tàmbali ñu xool fu ñu teg suñu tànk. fi ngeen di teg seen tànk tey euh, mel ni xaar bi bari na te mbabatu mbébétu itam askanu parcelle dafa mel ni bari na bu ñu xoolee wàllum assainissement d'abord. loolu nekk na ponk bi am solo maire dégg nañ ko mu wax ci loolu ah, li leen di xaar est-ce que natt ngeen ko. waaw euh, li ñuy xaar c'est vrai euh, bëri na euh, effectivement waa Parcelles yëpp yu xaar surtout que li jëm ci problème assainissement bon assainissement Parcelles dafa métti. parce que Parcelles mun naa wax ne bi ñuy def terrassement bi fa la problème yi bëri am parce que terrassement bi bon booy xool ba xool on a finalement des points qui sont des creusés. des points bas on en a onze points bas yoo xam ni euh, bu tawee c'est la catastrophe ndox mi du dem euh, encore que le réseau d'eau use aussi et apparemment euh, rëyul ah réseau bi dafa des ah moo tax ces problèmes là existent alors que bon c'est une compétence non transférée c'est une compétence effectivement donc du ministère de l'assainissement et des eaux ah. yow am na loo xam ne sax boo ko ñuy def parce que moi je dis que je fais partie de l'ancienne équipe municipale am na lu ma ci jotoon a xam am na loo xam ne ñoom ñoom waa ONAS du ñu bëgg sax nga laal seen réseau waaye yooyu yëpp day yëpp day am mais néanmoins quand même euh, avec euh, le maire euh, Jamil Sané et nous peut-être que nous sommes des technocrates parce que peut-être euh, boo jàngee ak ñàkk jàng aussi am différence ñun ñuy jàng dañu ne ñun euh, on a deux ingénieurs dans le groupe hein on a on s'est euh, y possibilité ah de travailler avec ONAS pour mm -hmm. rapidement régler ce problème là parce que. loolu lu euh, yitteel euh, parcelle la lu yitteel parcelle la parce que amoo foo jaar parcelle foo dox. unité 14 unité 15 unité 15 waaw amoo foo jaar unité unité 7. maa ngi fi benn école boo xam ne bu ndox mi ndox mu bon bi génne dootuñu jàng si dootuñu jàng si donc loolu c'est c'est ça urge ça urge hein on sait que euh, à a démarré. Euh, benn programme de restructuration du de la du, du réseau je pense qu'ils sont actuellement à l'unité 7 mais loolu yëpp bon comme que on n'est pas encore dans les affaires on ah. attend de prendre les affaires pour aller voir exactement où est-ce qu'ils en et comment ils vont tracer le réseau parce que parcelle quand même n'est pas assez compliqué parcelle quand même euh, mun nañu wax ne autorités yi ko liggéeyoon ils l'ont très bien travaillé parce que disons la vérité mooy que ni c'est des unités et que les unités sont on peut les remarquer on à l'unité 26 mais il y a toujours effectivement li leen séparé tali de vingt maison à vingt cinq maison donc donc c' est très bien sérieux pour créer un réseau je pense que warul jafe xanaa peut-être que les moyens qu'il faut parce que c' est un montant important. aussi qu'il ñu ne tam yéen a yor deuxième budget bu euh, Ndakaaru Parcelles Assainies. bon ginnaaw ville de <laughs> Dakar <laughs> waaw. non du ñun du ñun parce que yaa yàlla y' a la y' a y' a le plateau qui a qui a douze milliards y' a le <laughs> a la Médina six milliards nous ne sommes qu'à deux milliards. trois cent deux milliards quatre cent bëriwul donc euh, ñun loolu on compte bien sûr sur euh, l' appui que le maire Barthélémy Diaz l'a di parce que mhm. li est venu aux ah wax na fi wax waxu mbiru hôpital moom da baax de gis na gis na gis na suñu problème nee na euh, ñu jàppale. pour jox ñu yeneen 3 milliards wax nañu ko teg suñu budget bi pour mën effectivement relever ces défis là parce que le défi de l' assainissement c' est c' est extrêmement sérieux voilà Euh, la volonté est là. La volonté, comme l'a dit le maire, c'est notre, notre, priorité. Hein. Ça fait partie des priorités, des, points numéro un à régler. waaw parce que vraiment quand ñun waa Parcelles yëpp tey xam naa ne koo fi tegoon son problème numéro un mooy mhm. régler problème boobu ko assainissement waaw itam euh, gàttandu itam inondation lu am solo la. oui foofu sax xam nga c'est vrai que dans le budget euh, même d'ailleurs man la maire sortant foo laa ko doon critiquer toujours parce que dans le budget. c'est prévu un programme pré-hivernal donc il faut pas attendre aussi que ba ndox mi war de sa kaw nga door a jug naan yaa ngi wut ay oto nangam nangam non pas du tout un programme pré-hivernal ça s'appelle pré-hivernal c'est se préparer avant que avant que taw bi di ñëw c'est-à-dire euh, à défaut d'avoir une canalisation bien dégagée parce que c'est vrai que parcelle suuf rek la te xam nga suuf moom bu duggee ci ay réseau de canalisation moom mooy catastrophe la quoi. cest dire que les grilles avaloirs du ko mën téye. beneen problème la waaw il faut que les gens comprennent que loolu aussi y une sensibilisation à mener sur les populations. Mhm. parce que dans les pays européens on sensibilise même Maroc bi ñu fa demee bu yàggul ils ils sensibilisent les populations am na lu war a dem ci grille avaloir am na lu farul dem. waaw parce que grille avaloir dafa am ay ay à dafa am ay grille yu mag am am am yu yu xaw a mag am yu sew. Mhm. bu bu seew ba nag moom mooy téye lu bëri waaw mais bu bu bu yu bu bu sew ba bu demee ba nga xam ni première grille téye deuxième gris téye mu dem ba ca fële finalement ay dammitu ay ay ay butéelu Evian des comme ça ñoo yàq machine. Mhm. yooyu tamit il faut une sensibilisation. waaw askan essentielle askan bi xam ko. parce que tamit bon c'est vrai que defar moom baax na trop waaye defar aussi te am ay mesures d'accompagnement ànduñu si et des mesures parce que aussi population yi aussi bu ñu lay defaral tamit yow da ngay nangu ñu ngi lay defaral ñu lay defaral pare yow tamit nag soo paree yow yore say waasin tur wala mais en cas pour le programme pré-hivernal il euh, li jiitu mooy euh, dégager en tant que commune dégager des voies et moyens xam ne bu ndox mi ñëwee rek mu bañ a taxaw gaaw bañ a taxaw quoi toujours ma loolu yëpp c' est à faire un travail. Pré préparation lay doon préparation lay doon laaj muy ñëw. oui oui mais mais mais bon des réunions à à plus finir avec avec ONAS parce que on ne va pas laisser l' état. Mm-hmm. parce que aussi c' est un travail boo xam ni euh, on sait Sénégal fii boo soo yuuxuwul wala. wala soo soo xeexul dara du ah. mm-hmm. il faut nga yuuxu xeex dal seen kaw ne leen non. Mm-hmm. on va pas regarder que. ngeen ñuy seetaan. il ah. laata ñuy dem ci beneen ponk. mais ndax am dina yomb yéen da ngeen fare ci kujje. état nekk fi ndax collaboration boobu ñu war a xaar ci diggante ku jege ak ndax jàpp ngeen nii loolu dina leen yombalal liggéey bi. oui euh, bon on a. Ah, comme nga waxee opposition des fois dañ leen di galgal ainsi de suite. oui am ngeen euh, voilà. bon j'ose croire j'ose croire que quand même euh, il, ce sera gentleman agreement parce que aussi disons la vérité parce que euh, liggéey population ñu ñëpp ñoo ci bokkee un fonctionnaire de la de la République du Sénégal. se doit effectivement de, de faire son maximum pour que les populations soient à l'aise alors euh, parce que aussi tamit euh, nga nekk ci pouvoir naan ay collectivité locale bi bon c'est pas une collectivité locale qui est qui est avec moi politiquement je vais je vais je vais l'asphyxier ou bien je vais lui créer des problèmes non c'est pas adéquat. yéen a ngi xaar loolu. non non mais on on l'attend on, sait que beaucoup xam naa ne certainement am na ñoo xam ni des fonctionnaires parce que moi je c'est le c'est le parti parce que ce sera effectivement des fonctionnaires parce que ñi nekk ci administration bi di liggéey ay fonctionnaires lañu ñoom directeur bi fonctionnaire la ministre bi fonctionnaire la directeur bi euh, l'agent technique ñoom ñëpp c'est des fonctionnaires ñoom ce qu'on leur dit que qu'ils restent patriotes qu'ils effectivement donc de de des sénégalais en se disant que ni li may liggéey nii bu ma kenn jox instruction naan man que j'essaie de bloquer tel projet ou bien je ne réponds pas effectivement aux appels ou bien ah oui oui bon ils n'ont qu'à attendre je préfère aller vers telle culture locale d'abord non pas du tout euh, il faut que chacun d'entre nous se remet à son serment donc li tax mu nekk fonctionnaire xam ni moom réew mi moo koy fay bu réew mi di fay euh, lépp loo xam ne réew mi soxla na pour nga jàppale leen da leen si jàppale waroo fa nekk nag di di di di di xeexante naan ay woy man état laa bokk foog ma tànc kii soo ko defee defoo kenn sa bopp koy def te euh, le risque mooy que ni demain viendra cet état-là va tomber et tu seras trop exposé et c'est pas intéressant du tout il faut pas que les gens euh, dans dans dans dans ce panneau-là il faut pas l'accepter moi j'en appelle à tous les fonctionnaires parce que ñëpp a ngi wax ni euh, maire yu bees yi bu ñu leen jàppalewul salaire sax duñ ko mën fay non euh, de toute manière euh, on regarder li ñu mën a wax moom mooy on s'attend à tout ça mais nag fii tamit Sénégal moom c'est une grande démocratie hein. Et eh, on, il y a la tout le monde est Si toutefois on voit qu'il y a des blocages quelque part, non, rien n'empêche à ce que la personne, ou bien le maire, du monde donne non, il fait un point de presse sur tel domaine. J'ai fait tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. Et eh, alors, on ne me répond pas sur ça. Maire, vous me donne, si tu sens un blocage quelque part, fais un point de presse. Tu le dis à haute voix. Et tu dis carrément que tel fonctionnaire qui fait ça. Bon, bah, Sénégalais, nous défendons, nous savons que nous est-ce que galgal yooyu war na. bu fekkee lu baax lañ bëgg. dama ne la du dëgg du yoon loolu moo du dëggadu yoon soo gisee ma la fonctionnaire je parle à un administrateur donc donc du peuple je pas à des politiciens. il faut fii Sénégal depuis très longtemps dañoo jaxase léegi politique bi ak ak effectivement. la le travail le l' administration le développement qu'il faut. développement ñun ñëpp la war ah, administration ku fa nekk fonctionnaire yow da nga war a def góorgóorlu pour sa réew jéem a avancer. bul déglu ay affaire ay instruction yoo xam ni ah da lay nit wala da boole booleeg réew mi bul déglu instruction yooyu. Mhm. ku la jox instruction yi sax la le le plus serait de l' même quelle que soit la hiérarchie qui sera de les appeler de les faire comprendre que bon moi je de par la loi je suis là de par effectivement la volonté du peuple. fondamentalement euh, bon, vraiment mhm. mon tel ou tel ou directeur ou tel ou tel j'aurais bien préféré vraiment qu'on aille vers l'essentiel et les programmes politiques Mm-hmm. attendons le temps politique. Mm-hmm. pour ngeen def on <laughs> voilà mais fii moom euh, j'ose croire hein, vraiment que y aura du gentleman agreement parce que la gagne a été claire la gagne a été claire mm-hmm. vraiment il faut que tamit ñu bañ a ñaaw ci xare bi quoi. il faut vraiment. <laughs> Malick Kébé deuxième adjoint bu maire bu commune bu Parcelles Assainies mooy suñu gan ci émission gox bi ba tey euh, ba ngeen ñëw projet ngeen indi. jox ko waa askanu askanu parcelle ñu adapté ko. Mm. tey ci wàllum mobilité eh, urbaine lan lañ fa mën a xaar tey parce que parcelle kat ñu ci bari dañ naan xàll yeeg yenn ainsi de nit ñi fu ñuy toog di récupérer amu fa. waaw euh, bon le maire l'a di il a dit il a il a il a il a il a il a dit que effectivement que on va mettre en place effectivement donc le l'esplanade effectivement donc des Parcellois Euh, on va dégager des voies yoo xam ne nit ñi dañ si mën a doxantu ah, mën a jël air mën a xam ni effectivement ñu ngi si seen biir seen biir dëkk parce que boo nekkee sa dëkk tamit war ngaa mën a am fooy doxantoo ak fooy fooy jëlee air parce que euh, mënoo toog toujours sa kër rek de temps en temps il faut que tu changes d'esprit et que c'est important ces ces espaces dédiés là c'est important malheureusement. loolu fa tumuranke la malheureusement malheureusement dafa tumuranke parce que euh, wax naa ko sànq li ko indi rek mooy. Euh, ñàkk surveillance effectivement du territoire territoire moom moo indi problème boobu parce que un territoire tam bu ñu ko confier du yow sa mairie ngay toog rek jàpp sa njàmbur déedéet y a ce appelle des agents envoyés euh, mun naa wax ni la SNHLM qui a mis en place effectivement donc les parcelles assainies a sur le plan urbanistique a fait un travail remarquable y a assez d'espace au niveau des parcelles alors maintenant on a remarqué que y en a certains qui ont qui ont fait des extensions les parcelles il Eh, qui qui qui ont même plus de parcelles euh, on, on se pose des questions même. ah lu tax loolu comment ils ont fait. Euh, par quelle alchimie ils ont fait pour aller à, euh, voilà, à la SNHLM ba ñu jox leen espace yooyu ñu ñu ñu ñu ciy dëkk di yokk seen kër yooyu vraiment ça nous a ça nous ça nous a ça nous a ça nous ça nous étonne mais néanmoins euh, on, on se le cache pas et les et les les les les OVP euh, les occupations de la voie publique aussi tout ça c' est des problèmes énormes au Parcelles Assainies c' est mais comme l'a dit monsieur le maire euh, que j'ai félicité au passage hier seulement on était dans une manifestation il a di il a dit que euh, vraiment il faut qu'on s'attend effectivement donc à des mesures fortes bien sûr euh, mhm. ci ci ci do ci fànn bu nekk waaw yaa de parce que tamit ku bëgg defar ni ko Barthélémy Dias waxee dëkk bi suñu dëkk la ah nañu ko bokk ah. ah nañu bokk bokk bokk Dakar nee na Dakar bi ñu bokk c'est important Dakar bi ñu bokk mooy Parcelles Assainies bi ñu bokk mooy Liberté bi ñu bokk mooy fii euh, euh, Wakaam bi ñu bokk li ñu bokk nag waruñu yàq kenn warul yàq ku nekk rek limite bi nga xam ne moom la urbanisme jox boo yemee foofu rek problème du waaw parce que tamit nit ku ci nekk ah nañu waxoon dëgg rek mënoo kër mënoo tëdd ci kër gi yow yow ci biir néeg ngay tëdd te biir néeg lal ngay tëdd te yow lal mënoo tëdd yëpp yow yow yow nit ñi nga toll loolu ngay tëdd donc yow jarul ngay jël sa kër di ko yokk yokk ba jëm yëg dem taxaw ci ko taliba boo yokk ba ci kaw taliba bu sa doom génnee bu ko oto fiiree yaa tooñ sa bopp parce que boo demee ba nga xam ne yaa ngi teg teg jël yow sa kër nga jël ko buntu nga teg ko ci kaw tali bi xale yi dañuy foore boo xale bi dawee génn ci biti oto di romb mais automatiquement. comme que ni comme ni nga koy waxee. xaar xaar ñu ngi leen di xaar bu baax ci ponk yu bari ah. Euh, mobilité urbaine beeg. yeneen yeeg yeneen loolu yëpp on va on on va parce que tout ça xam nga tu sais waxtaan la ak nit ñi. et sortir des plans effectivement donc de de circulation tout ça. Euh, y a des, je l'ai dit hein, y a des ingénieurs qui sont dedans on, on va sortir des plans et on va appeler tous les acteurs là toog waxtaan ak ñoom comme le maire l'a dit le maire a dit que euh, li nga xam ne moom mooy effectivement donc le. le le conseil de quartier. d' abord waaw loolu loolu da ngeen faral ñu koy faral di dégg conseil de quartier yi ban rôle la ñu war a mën a indi tey ci euh, gox ak goxaan yi. waaw mooy li ñuy wax ni xam nga conseil de quartier euh, boo jëlee euh, benn unité nga jël kilifa yi fa nekkee mooy délégué de quartier bi imam bi président ASC bi les les mouvements yi nga xam ni ak les GIE yu nekk foofu ñooñu ñëpp ñooñu ñooñu ñu dëkk ci quartier bi ñoom ñooñu ñooñu mun nañuy réunion. ah di di conseiller effectivement donc la collectivité locale mooy mooy mooy waa mairie leen xamal ne ñu suñu quartier bi lii mooy suñu problème lii mooy suñu problème lii mooy suñu problème waaw parce que yow maire peut-être yow doo mën a ñëw directement di intervenir balaa ngay intervenir il faut nga xam problème yi fa nekk lan la et problème yi fa nekk pour nga xam ko ne d'abord il faut vraiment aller vers d'abord la population et que pour aller vers la population nag mënoo jël n'importe qui rek di wax ak moom da ngay il faut créer des cadres de concertation dans chaque unité ñu ñu ñu ñu créer cadre yooyu foo xam ni on leur donne un deadline on leur disait on a besoin effectivement des rapports à telle date effectivement réunissez-vous dites-nous les problèmes qu'est-ce que vous voulez c'est les gens nous disent parce qu'il y a des unités yoo xam ni ils te diront que waaye ah, borom nañu wala car rapide fu leen neex taxaw ah, am na ñoo xam ne ils se disent que ni car rapide sama sama palanteer lay lay lay lay gaare chaque jour bon on a je connais le problème de Dior par exemple où effectivement c' est hmm. eh, aujourd'hui man gis naa jaay ko du jënd sax ñu ngi ba ci kaw tali bi ah loolu yooyu yëpp c' eh, ay ay waxtaan hmm. xam nga d' Sénégal euh, c' pays boo xam ne d' abord de dialogue quoi. tu peux hmm. pas d'un seul coup avec la main main eh, mais on dit aux gens tout de suite que euh, moi qui vous parle moi je suis donc on, on que la loi dit ce que la réglementation dit lu xam nañ ko mais quelqu'un boo xam ne moom li mu xam moom mooy waa këram lekk guñu kooku moom xamul yooyu moom li mu xam mooy na lay def rek ba ba ba am daw lu mu yóbbu kër ga gaaw kooku hmm. loolu mooy nekk problème quoi donc tous ces paramètres là il faut ñu koy sóoraale aussi ah, euh, doo ñëw rek fekk benn maire boo xam parce que nous on parcelle on on sait que aussi euh, c'est des unités yoo xam ni euh, bu njëkk ba dañu ko doon joxe à des moins à des prix moindre coût nga xam ni quatre-vingt-dix mille tu pouvais avoir parcelle une parcelle tu ou bien à à ah, soixante mille francs mu nga am euh, benn parcelle aussi donc la plupart des de nos de nos parents là sont à la retraite y en a ou des maisons où ça pas trop donc euh, y en kii qui s'en sort mais y en a qui ne s'en sort pas loolu tamit y a un que nous allons faire effectivement sur le plan mhm. avec avec l'ANSD pour connaître effectivement donc mhm. vraiment euh, dans chaque euh, côté du terroir mhm. euh, se trouverait effectivement donc euh, le, le, la faiblesse des revenus pour aller pallier sur tout ça parce que tout ça aussi ça sur effectivement donc euh, li li si OVP yëpp ça influe. ok voilà tudd nga marché yi. Mhm. Euh, parcelle macha allah bari na marché te day génne koom. Mhm. est-ce que ñu ngi euh, séntu organisation ci marché yi parce que marché joor marché police sax yeneen ay marché yu mag lañ quand waaw loolu la loolu la parce que nous avons quatre ou cinq marchés yoo xam ni vraiment euh, organisation dafa euh, war parce que tamit ñoom ñu ngi may dëkk Euh, sunuy ce sont nos ce sont ce sont des cohabitants avec nous hein euh, ñun ak ñoom ñoo bokk dëkk foofu man dégg naa ñeneen ñi di ma wax ne ma waaw ñenn yenn commerçant yi disent que ñoom day ñëw daan seen doole après dañuy ñibbi seen dëkk quoi <laughs> non te ku dëkk Dakar rek <laughs> Dakar nga dëkk ko il faut pas il euh, nga ni bon man dama ñëw Dakar daan sama doole après daal di dellu sama dëkk Euh, parce que sa dëkk boobu ngay dellu yow ñeme woo fa ñeme woo fa euh, taxaw ci diggu dëkk ba nit ñi bale dëkk ba mu set parce que dëkk yi boo fa demee euh, dañuy dañuy dañuy bale suuf si ah suuf suuf dañ ko dañ koy tamiser même la je dans des dans des zones de de tout là où dañ koy tamiser waaw boo ñëwee parcelle nag boo ñëwee Dakar. kenn tamisul suuf si waaye fekk fi tali fekk fi trottoir juste <laughs> bu bu ñëw rek ne man. fu ma neex laay installé en tout cas naa daan sama ab dem sama yoon mbedd mbedd mbedd non non non ça moom quand même être bu ñu toogee ak ñoom loolu la leen njëkk wax la leen wax ni euh, nañu nañu yar suñu bopp tamit il faut ñu yar suñu bopp tamit euh, xam ni mbir mi ñoo ko bokk du du affaire boo xam ni la mais là da ngay ñëw rek non bon yow li lay intéressé mooy sa koom-koom euh, li intéressé ñeneen ñi intéressé wu la c'est pas comme ça nit ku ci nekk boo dee boo dee boo dee boo dee doomu aadama ah, li la li la diina wax ci diine yëpp ah, ah moo xam diine chrétien moo xam diine l'islam ak beneen diine mun doon tamit li ñu la mën wax booy d'abord mhm. euh, regarde sur le devenir de ton prochain avant de regarder ton devenir yow baa ngay xool sa xoolal ndax kii maag moom ñoo bokk vraiment effectivement donc. Euh, est-ce que mën nañ xaar ay xam nga dañ naan mairie yi amuñu xaalis te il faut nga dem uti xaalis tabax ay centre commercial loo xam ne dina la indi dara pour nga mun a développer itam commune la. Mm, bien sûr cest dire que euh, au plan institutionnel bien sur y a y a beaucoup de réformes qu'on va y aller euh, au tabax lu mel ni tey par exemple ni le centre socioculturel au niveau des parcelles y a y en les jeunes pouvaient s'épanouir il faut a ça de construire le centre socioculturel. parce que amoon na fi bu njëkk ba mais amatu fi woon il faut que ñu remettre ko en place pour que les jeunes ku ci bëgg ñii di karaté karaté ñii di basket ñii di def effectivement beaucoup de discipline parce que y' a parce que. xanaa biir stade bi yooyu yëpp amul jumtuwaay yi nga xam ni def nañ ko fa. bon apparemment je suis pas rentré dans le <laughs> fond du stade tout ce que je sais je sais que y a un terrain qui est là-bas sur place. alors euh, mais xaw ma ndax terrain bi mën na am euh, gardé na yeneen espace ou bien suufu tribune yi et toutes ces disciplines là sont prévues c' est possible. ah mais je sais pas pour le moment si c'est prévu mais en tout cas ce qu'on sait ñun ça urge de de de de effectivement donc aux Parcellois aux jeunes à jeunesse parcelloise rapidement. Mhm. effectivement de des espaces pour pouvoir se se s'épanouir ah, mooy euh, discipline de sport yi. mooy ku bëgg bon ñii di marier bu ñu bëggee dem avoir une salle euh, gratuitement aller effectivement donc Eh, donc dem foofu def sa réception te doo am benn problème quoi. Mhm. parce que finalement on a vu même que les gens font des réceptions maintenant eh, à découvert dans les dans les dans les dans les dans les dans les voies. Mhm. Eh, qui sont des voies war a dakk taw yooyu dafa Sénégal parce que tamit Sénégal aussi tamit mhm. c' est pas doo ñëw rek teg sa bâche nii rek ne da ngay am da ngay am mariage tey y' a pas d' autorisation y' a rien du tout c' est pas intéressant du tout. Euh, li gën mooy. on on construit des choses et effectivement donc les gens les gens vont y venir. donc su ma la déggee ni ngeen nar a Euh, fi ngeen nar a jëmale parcelle Parcelles Assainies lépp waxtaan la diisoo ak askan wi. voilà loolu moom moom moom mooy suñu leitmotiv waaw loolu moom mooy suñu leitmotiv on pour effectivement faire un forcing loolu moom digal ko li ñu digal mooy euh, waxtaan ak population bi. Ah, en premier temps et en deuxième parce que nag waxtaan bi dañu mhm. ñu waxtaan jël temps toog fa di waxtaan tamit parce que tamit mhm. dañu <laughs> ah, waxtaan moom waxtaan bu jiitu. waaye nag du ñu bàyyi aussi kenn ko xam ne aussi ñu tàddal waaw nañu waxtaan waxtaan bi ñu ko fi ñu war a waxtaanee euh, bu waxtaan bi dëggee tam ñu jaarale ko fi yoon li yoon wax ñu jaarale ko foofu aussi tamit la ca topp nag mooy effectivement mettre des institutions pour que on fonctionne d'urgence euh, lu mel ni centre socioculturel boobu l'hôpital de niveau 4 nga xam ni Parcelles Assainies mu koy xaar c'est pourquoi on remercie que ay noraat yi yëpp yooyu itam ay centre la yoo xam ne war nañ ko mën a yëkkatiwaat waaw loolu yooyu yëpp c'est des centres yoo xam ni Euh, dañ koy waat euh, le centre NORAD le centre Mame Abdou Aziz le plateau technique le maire a tellement insisté sur ça parce que le plateau technique faut def fait défaut il faut très rapidement soit on a fait benn R plus un nga xam dina am yeneen yeneen discipline yu nekk biir nga xam ne le cadre sanitaire vraiment les gens duñu toog di am ay problèmes. Mhm. Pastel même d'ailleurs c'est pourquoi je salue toujours euh, parti mon parti donc de de d'antan le parti socialiste <laughs> parce qu'en réalité sooy xoolee boo xool toutes ces commodités là avaient été mises place les écoles les postes de santé tout était mis en place parce que nit fu mu dëkk rek am na yoo xam ne da koy accompagner. waaw ah. c'est ça qu'on dit les commodités de premier ordre. premier ordre munoo ko bàyyi ginnaaw te loolu nag dafa laaj dafa laaj un entretien continu malheureusement au Parcelles que les postes de santé sont laissés en rade les postes de santé sont laissés en rade alors maintenant il faut rapidement que est bien refait hein, mmh. sur le plan de la propreté et de l'hygiène publique. Ah, moo ëpp solo moom. Mhm. on on jouera pas sur ça. ak ñu ne wax nga ko junj nga ko sànq Parcelles Assainies suuf si dafa bari léegi ñëpp ñu ngi ci eh, aéro pavage parcelle bari na suuf. est-ce que tey ñu ngi xaar ba parcelle bi yëpp tey mën a euh, suuf si mën a wàññeeku foofu su même suma waxul nii lépp nekk pavage. waaw mooy sunu mooy suñu deuxième euh, leitmotiv on a dit que. Mhm. Euh, on préfère parcelle sans parce que vision de la moom sax junjun la ko ci ba muy bañ ko installé nee na bëgg na usine benn usine tey bu nga xam ne mën nañ ko sànc parcelle donc le maire wax na ko donc mooy suñu deuxième à part cette histoire effectivement donc de ah donc de d' assainissement là benn affaire beneen xeex bi mooy def tout ba pavé parcelle c' pourquoi euh, on compte sur bien sûr l'appui de la ville de Dakar. suuf si moom na de. waaw suuf si bëri na mais euh, tout est question d' innovation tout question effectivement d'ingéniosité c' est tout simplement ça c'est-à-dire que on a un budget de deux milliards euh, trois cents nous allons retravailler effectivement donc euh, le, le, la zone de terroir de la manière commerciale pour voir effectivement où se trouveraient aussi d'autres niches de recettes de recettes si on a plus de niches de recettes encore ça peut rapporter le budget jusqu'à deux milliards cinq cents ou trois milliards mhm. si on a ça ça veut dire que de quelque part il n'y a pas de problème on peut aller vers le pavage euh, a bien sûr le programme de l'État du Sénégal avec le le Euh, parcelle aussi à a à effectivement donc. sa part ba duñ leen ko wàññi euh, parce que nguur nguur a fa nekkoon de pakaseen bi ñëwaat est-ce que duñ ko wàññi. no xam nga loolu yëpp duñu ko wàññi non loolu yëpp <laughs> na dugg ci dans le cadre du du gentleman agreement rek <laughs> nañu bàyyi mu liggéey boobu continuer. waaw bu ñu fa nekk naan ay non opposition la ñu bu dañuy dañuy wàññi programme rek dañuy nangam yooyu moom vraiment c'est c'est si si on si le font aussi ce sera à leur détriment. Et nous, on n'hésitera pas à sauter à la presse et à dénoncer. Mmh. À dire que voilà, eh, c'est parce que nous sommes, dans, nous sommes des tenants, nous avons une nouvelle vision que les gens veulent nous bloquer. C'est un mmh. moment, personnellement, quand quelqu'un essaie de me bloquer, euh, si j'ai pas de voie de recours, mmh. je, je viens à la presse, je dis ça à la population. ñëpp dégg mmh. ñëpp xam ne kat ah man kat li ma doon def naa ko pare léegi kii kat mooy jéem a bloqué waaw mais en tout cas. Euh, le deuxième motif c'est vraiment tout fait pour que parcelle sans sable c'est extrêmement important ça rend beaucoup de volets. juróomi juróomi at yi di ñëw mun nañ gis. Parcelles Assainies bu changé incha allahu rabbi juróomi ji ñëw moom ça je peux vous je que Parcelles Assainies aura notre visage parce que équipe bi ma gis nii moom alors c'est une équipe boo xam ni je suis content du maire parce que lui il me disait hier rek ma je man je suis pas intéressé par des histoires de mandat waaw man liggéey moom fi indi waaw ku yaakaar ay xaw ma deuxième mandat yooyu xam nga maire politicien yooyu la wax oui moi j'aurai notre mandat y en a qui viennent à la télé là jouer le mandat non non c'est pas c'est pas des histoires de mandat c'est des histoires d'abord de travail pour les populations ba pare suñu gisee ne yow liggéey nga yow bu ñu la war a fal ñu faraat la mais soo liggéeyul nag liggéeyu la mais xajal xajalal keneen mu ñëw parce que aussi <laughs> expertise bi yore yaakam yàlla yàlla bindu la yow rek dafa bind dafa bind bind fi ñeneen et le maire là il a dit que lui dafa pas des histoires de mandat ce qui l'intéresse mooy développement parcelle assainies il faut ku dugg parcelle tey gis ne xar kanamu parcelle changé na nga dugg ñëw xool gis ne effectivement on a dégagé les voies et que tout est maintenant clair ku nekk di nga yeewu dox fa nga war a dox bu samdee ku nekk sañse am foo jaara vraiment boo doxoon doxoon sa doom oto du la jege dara du la jege c'est important mais affaire bi jaxasoo ba nga xam ni instant yi nii ah, bu égout yi génnee fële benn car rapide fële fële yow yow tu plus te promener avec tes enfants parce que finalement <laughs> tu maîtrises pas la la voie mm-hmm. c'est pas intéressant parcelle xat na problème insécurité itam mënuñu ko fa euh, ñàkk bañ a wax bien vrai que indi nañ beneen commissariat unité 15 euh, mais ba tey euh, problème sécurité mi ngi fa bien vrai que du seen compétence li nga xam ni war ngeen ko mën a def waaye itam ay jéego war na mën a am ci wàllum sécurité. waaw wàllum sécurité bi moom saa moom c'est c'est c'est bien sûr sa fait partie des des axes prioritaires wax nañ ko je pense c'est le cinquième axe prioritaire wax nañ ko ne effectivement on fera tout d'abord qu'il y ait l'éclairage avec la République euh, dans, chaque coin et recoin effectivement de vingt unités tout sera éclairé alors maintenant bien bien sûr il y a un boo xam ne il faut ñu def ko aussi euh, parce que nos délégués de quartier aussi ils avaient l'habitude de là à remplir des certificats de domicile seulement <laughs> maintenant ce sera plus ça maintenant on, va essayer de voir avec l'ANSD et le contrôle de chaque maison parce que aussi euh, un quartier il faut que kép ku fay dëkk ñu xam kan la quoi voilà donc euh, unité numéro kër gu ci nekk il faut que désormais le chef de quartier euh, nous mette effectivement donc euh, le nom et le kër gi ñu xam kan kan ak kan ak kan moo dëkk ci kër gi voilà bu ko defee aussi tamit nos camarades ou bien nos les les étrangers qui vivent parmi nous aussi parce que parcelle entre nous la cybercriminalité est un peu élevée là-bas pourquoi le commissariat de l'unité 15 c'est surtout ça il y a beaucoup de nos de nos camarades africains Euh, parce que Sénégal moom le, les frontières sont poreuses la plupart des gens. dañuy ñëw ils viennent. Mm -hmm. et, et ils se cachent dans des terroirs comme Passe Asine cest dire que bon euh, y a pas euh, amu fa contrôle bi bi nga xam ne moo ci war a nekk. Mhm. pour autant le contrôle à priori nous appartient appartient à mhm. l'État mais pour nous il urge pour le le cadre sécuritaire vraiment au-delà de de de gérer nos populations à nous. ah parce que ñun nos populations aussi on, les gère. Mm dire que kër gu ci nekk on on on va les surveiller. pour voir effectivement euh, euh, le poids social, tout ce qui s'ensuit. La délinquance aussi des jeunes. On fera tout pour mettre les, les institutions adéquates, le centre que j'ai parlé, mhm. pour effectivement donc euh, régler le problème des jeunes et l'école de métier effectivement que le maire a parlé ah. qui n'ont pas de formation ñoom ñu mën foofu bénéficier am métier parce que tamit on on ne peut pas être dans un pays où, où, où on ne travaille pas waaw ah, kenn warul yeewu nekk chômeur rek toog nii quoi non pas du tout. mu neex na waaw mu neex noonu ngay teg caa xam nga di waxtaan di kii non pas du tout nit nekk boo yeewu léegi da nga war a xam ne ñun Sénégal ah, yow da nga ko bu ci nekk boo yeewoo li nekk sa bopp fi mu nekk nii du doon ay waanoo non gars yi gars yi non du gars de yow la c' est toi d' abord. Mhm. tu dois te mettre dans ta jaay jaay jaay pain jaayal bu jaayee def li def defal loolu parce que nit tamit da ngay am da ngay am engagement quoi. doo mën a toog nii rek. sa papa yor la sa yaay yor la yooyu moom vraiment euh, heure bi ñu nekk nii moom vraiment ce côté là on le dépasse. en tout sur le côté sécuritaire. Ah. ah euh, un travail très sérieux qu'on travail boo xam ni nous qui sommes sortis donc de de de de l'ENEA euh, c'est important euh, le travail avec l'ANSD c'est important pour avoir les chiffres exacts et effectivement donc euh, le contrôle sur chaque effectivement donc unité au niveau des Parcelles Assainies mm-hmm. que les délégués de quartier les personnes les étrangers qui viennent vivre parmi nous qu'on les mette dans les fichiers waaw kenn amatul droit on va avec le maire les gens viennent là-bas seulement habiter là-bas comme ça on le contrôle pas. Mhm. on a eu des cas n'en plus finir avec la cybercriminalité. Mmh. on a eu des cas avec le Guinéen là qui a quitté Guinée avec Ebola là ñëw ba làqatu une de sept. finalement. te kenn xamul kenn xamul. Mhm. finalement c'est c'est c'est c'est par hasard que les gens l'ont découvert et c'était la catastrophe et c'était c'était l'appeurement quoi mhm. parce que <laughs> mooy loolu quoi doy na waar kon <laughs> war nañ ci indi ay saafara lu am solo alors tey euh, ñu wax ci ponk bu mujj bi fixé nañ datu li euh, nga xam ni moom moo jëm ci élection législative yi war a ci yeneen jongante fanweeri fan ak benn ci welu juillet juillet euh, ñu war a demaat si yeneen jogante yéen yéen a ngi fëgg dënn yeewi askan wi ne yéen a gañe gouvernement bi ne neen dóor na leen dóor yu métti ci euh, yeneen dëkk yi xanaa kon bu doon élection législative ñoom ñooy jàll di <laughs> waaw moom fëgg ñu dënn ne ñun ñoo ñun ñoo gañe fëgg dënn moo dafa rëy moom parce que ñun nekkuñu ci phase wane ni dañoo dañoo dañoo dañoo am doole ba lu nu neex def wala lu neex doo déedéet yeewu askan bi dafa nekk ci benn yoon yoon bi mu nekk mooy euh, doxalin bi am ci biir réew mi euh, doxalin moo jaarul yoon doxalin boobu nga xam ni jaarul yoon euh, da am nag foo xam ni fa la ñuy jaaree parce que lii ñëw nii du dara lu dul firnde ci yoon bi bi ñuy jël te nit ñi nangu nañu yoon boobu. ah firnde la. waaw firnde la te nit ñi nangu nañu ko yeewu askan bi. Euh, mi ngi ci yoon bu baax mooy que ni euh, jot na ñu def changement yi nga xam ne moom la ñu war a def euh, def ci réew mi mais changement yooyu nag du du mën a collectivité local rek du du du ci doy il faut ñu def changement yi ci collectivité locale yi def changement assemblée nationale parce que li fi xew assemblée gis nañu fa. kon yéen a ngi xalaat déjà cohabitation. ay xuloo ay xeexoo assemblée nationale di di détruire l'image de l'assemblée nationale vraiment c'est regrettable et des députés qui sont des. qui sont des des des des automates vous votez vous votez comme ça et sans regarder te sans nga jàng xool li nga war a xool affaire yooyu parce que ndax mate na ko wala matewu ko loolu moom vraiment yooyu on s'est dit que moom loolu moom il est temps que ñu ñu jële ko fi. Ah, waaw jële ko fi mooy indi cohabitation. jële ko fi mooy bon indi cohabitation mais bien sûr pourquoi pas pourquoi pas parce que en réalité <laughs> eh, il est temps que vraiment nous que Yewwi Askan Wi opposition bi te assemblée bi effectivement mën mën a mën a jaarale gouvernement bi ci yoon. parce que tamit gouvernement bi tamit euh, ñoom ni ñu doxalee ni euh, mun naa wax ni euh, doxalin bu leen neex la parce que <laughs> doxalin boo xam ni la vraiment aujourd'hui tey dépassé nañ ko parce que tey fi mu nekk nii le monde entier remarque que le Sénégal est en retard et il est il est temps que le Sénégal avance sur beaucoup de la démocratie qui était très avancée au Sénégal on a que au Sénégal temps yi ñu génn nii c'était la catastrophe on a on a on a di di di di jàpp nit instrumentalise des choses pour jàpp nit nit ki deful dara ah parce que de manière politique il euh, hmm. t'a dominé sur le plan politique tu du tout il faut que euh, yow ak nit boo leen bëggee jongante hmm. ngeen dem jongante parce que dañu gis ni coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo tasaaroo ci élection am na ñoo xam ne sax ay liste parallèle lañ def ñooñu est-ce bu ñu boole woon seen doole du gënoon métti yéen si yéen tey <laughs> non loolu population xam nañu ko que ñun Pastef dañu doon faral di wax ne fii benn liste mooy fi nekk liste opposition mooy yeewu askan li fi nekk yëpp <laughs> ñoom ñoo far waaw ñoom ñoo tas ay benn ñaari ñett ak ñooyu ana ñu doon wax ay Sénégal deux mille trente cinq tu manger vingt neuf milliards tu manges le truc de Sénégal deux mille trente cinq manger les gens sont tellement osés am na loo xam ne nit du ko du ko nit du ko ñeme yow nga <laughs> y a des dossiers qui sont pas clairs on t'incrimine là yow au lieu d'aller régler ton problème yow tu te mets dans un dans une logique d'aller faire une boo xam ne yow sax tu as du mal à expliquer effectivement qu'est-ce que tu veux faire dans ça je pense que quand même il faut pas que moom daan ay Sénégal 2035 parce que désolé quoi c'est moom on on la population sénégalaise est assez éveillée ku leen fi tegal yeneen xaw parti xaw yeneen coalition mhm. du dama ne la ñooñu duñu coalition coalition nguur nguur gi fi nekk la waaw te ñoom ñëpp nañ leen tegal bu soobee yàlla. si jamono joo xam ne gouvernement bi nee na procédure d' urgence la dugaloon pour poste premier ministre bi procédure d' mais mbir mi moom mujj na yéex bi. <laughs> non c' est c' est euh, tout est question euh, le problème c' est la politique il faut trop de politique. da nga yàpp ni calcul la ñuy nekk. calcul la rek lii yëpp euh, parce que ku développement yëkkati doo fi nekk di teg ay schéma ak di kërën kërën ñoom seen gouvernement schéma schéma gauche schéma amu fi. mettez un premier ministre vous connaissez à travers loolu la looy xaar si gouvernement boobu nga xam ni junj nañ ko ba léegi mënul taxaw ba léegi. non parce que premier ministre bi. est gouvernement boobu du mën a taxaw parce que entre ñoom déjà jubóowuñ entre ñoom ña ngay xuloo ku nekk yaa ngi teg ne il faut yaa war taxaw ci kanam donc mais y a un trop plein comme on dit après la après l'apogée c'est le déclin nii y a beaucoup de dinosaures chacun tire de son on les conséquences de de. des élections locales là vont beaucoup vont vont beaucoup. da nga yaakaar ni dina feeñ bu baax. ci ah gouvernement bi ah, bien sûr vont beaucoup influer il faut il faut si soit euh, en tout cas ce que je conseille au chef de l'équipe <laughs> je lui conseille vraiment d'aller effectivement donc vers gouvernement d'ouverture et d'aller effectivement donc d'aller vers donc de de de de large discussion avec mhm. l'opposition parce qu'en réalité euh, le Sénégal ñoo ko bokk. mën na nekk ñu xaarandi opposition dugg ci gouvernement bi. oui bon tu sais opposition bi. dugg ci yéen waaye yeewi pare ngeen pour dugg. no pas du tout yeewi moom pareegul pour dugg yeewi moom fi mu nekk nii moom dynamique bi mu nekk moom fi mu nekk mënu ko wàcc fi mu nekk nii am benn contrat avec les populations pareegul pour dugg ci ci ci kii mais je le dis que mieux vaut d'aller vers euh, une un apaisement. que d'aller vers effectivement un affrontement c'est pas intéressant mm-hmm. de prendre donc euh, tout un dispositif euh, que les gens créent des marches nga ne fi marché di xeex ak ñoom ci mbedd mi jaru ko parce que c'est entre nous Sénégalais quand les gens faire des marches bàyyi leen ñu marche eh, c'est c'est une expression effectivement donc d'opinion mm-hmm. c'est pas méchant du tout et ça c'est d'ordre constitutionnel loolu quoi mais bu nekkee nag bon on laisse la constitution on applique ce que le parti veut ah oui ce que le parti veut ces gens là bëgguñu leen gis. Ah. ils n'ont pas droit si nous que gouvernons. juriste juriste nga. waaw ah mais yéex na procédure d' urgence la ñu waxoon mais fii léegi urgence euh, yàgg na. bon mais fondamentalement vous venez de le dire y' a y' a pas y' a plus quand urgence kay. <laughs> on ose croire que c' un référé quoi. Ah, xaar bi yàgg na c' du tic au à à de deux ou trois jours. c' est <laughs> référé mais bon si on en est jusqu'à un mois de truc comme ça c'est ce sera autre chose ce n'est plus urgent il n'y a plus d'urgence <laughs> ok pardon ils temps et d'aller le schéma dont ils sont <laughs> ils sont en train de courir avec am na solo kon ñu sant la gërëm la bu baax euh, Malick Kébé deuxième adjoint au maire bu commune bu Parcelles Assainies fan la yees ci biir semaine bi lañ leen installé nga nangul ñu wuy si uh-huh. donc ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm merci beaucoup merci beaucoup Mbemba nous aussi effectivement donc c'est un honneur d'être à vos côtés parce que on vous demanderait toujours d'accompagner les collectivités locales. parce que on naa a plus besoin. moo tax ñu ne émission gox bi. waaw c'est important émission gox bi c'est très important il faut que. Euh, mën nañ ko gën a améliorer sax yokk gox bi euh, prendre jël benn gox jël tous les jël jël architecture gox bi ah, moom mooy population bi ah le nombre effectivement d'institutions qui sont là-bas sur place le nombre effectivement de ou bien le nombre de centres de hmm. dina tax ñoo xam gox bi. Ah. est-ce que gox bi ma ngay fonctionner. parce que gox bu ci nekk dafa am nu muy fonctionner. Hmm. dafa am des communautés de premier ordre. communauté de premier ordre bu fa nekkul rek. Hmm. maire ba fa nekk dina am problème pour fonctionner. wala maire bi moom peut bu bu xoolee ñoo xool appareil institutionnel bi dina xool ndax moom. daf ci war a yokk wala daf ci war a wàññi wala effectivement donc war na ko mën a gën a liggéeyaat. dinañ ko jël en compte incha allah vraiment fondamentalement on vous remercie beaucoup. jërëjëf au passage c'est c'est ma matière. merci merci technicien supérieur en gestion des collectivités locales. et en deuxième adjoint au bu commune bu Parcelles Assainies moo nekkoon tey suñu gan ci émission gox bi gërëm Léopold Mendy mi nekkoon ci xarala gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM.